ñu koy fajal ay problème nga xam ne réew moomu naqari na parce que les policiers sénégalais c'est frères la gendarmerie sénégalaise c'est nos frères ñun ñoo bokk ndey ak baay gis ngeen leen nootuñu kenn dóoruñu kenn ñu ngi nii lu leer ba leer mooy bu ñu jógee ñoom population bi la àndal loolu na leen wóor ndax jógoon nañ fi Macky Sall comme niñ leen ko waxee rek sénégalais yi nañu jóg lii lancement la lii ngeen gis nii début la rek. ndax comme ni ma leen koy waxee toujours yonent yàlla bi muy wootee l'islam juróom-ñaari nit génn ñu. waaye tey gis ngeen l'islam c'est plus de deux milliards de personnes dans le donc million marche nit ci doon yi neex na ma trop lii moo tax lii moo tax moo progressif progressif am parce que il faut ñuy progresser il faut ñuy avancer. yegg palais incha allah ñu ngi leen di remercier yéen nag. ok Macky Sall dégage rek Sénégal jëm kanam.